sànni ji tuuti wax ci tuuti la euh, di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, di ziar di dolli ziar euh, bépp kilifa bépp kilifa diine bu fi teew di kontaan trop jóge Dakar ñëw ba Darou Mouhty ziar si vraiment sunu njiit bu tedd sunu kilifa mu di sëñ Abdou bu bàyyi xel moom vraiment moom ci fi invité woon il y a déjà ba ñu fekk fii góor gi vraiment mu ñaanal ñu fii ci kër gi euh, ñu fekkaat ko si ba ca tool ya vraiment jële fi jàngat jële fi ay leçon euh, ba nga xam ne thème bi tey euh, jaaxaluñu tey ñu ñëw fii pour wax affaire mbirum foi mbirum religion mbirum citoyenneté ak mbirum engagement politique képp ko xool ci ñaar ñi nga xam ne ñii ñoo waral bâche bi tey muy sëñ Bamba muy euh, sëñ Baye Cheikh Khady xam nga ne ñetti ponk yooyu ñetti terme yooyu ñoom def nañ ko ba jeexal su fekkee ne diine la vraiment euh, ñoom def nañ ko ba mu sotti su fekkee ne engagement la engagement parce que man ba ma demee ba fekk fa góor gi ca tool ya vraiment gis naa engagement bi bala ma fi jóge tamit visité woon Daaru Musti euh, lim fi def muy ci ay mosquée ak yooyu vraiment gis nañ beneen bi ci des euh, muy citoyenneté bi tamit par rapport ak ñoom naka lañ doon doxalee mooy li nga am jëlal li ma am kaay ñu séddoo kaay bokk ci kaay jël donc vraiment ñoom jeexal nañu euh, lépp lu ci mbirum tem am na lu ñu ci junj sànq nag démocratie bu nekk presque mën nañu wax ñetti pàcc la pouvoir pouvoir bépp pouvoir fu mu mënti nekk ci monde bi day jéem a toog jéem a continuer loolu c'est la loi naturelle des choses opposition métier mooy sànni xeer métier mooy golo wàccal gaynde yëg métier mooy puusal ma toog donc ñaar ñooñu y aura toujours des problématiques mais dafa am benn troisième pouvoir bu nga xam ne bi contre pouvoir lañ koy wax mooy yéen mooy société civile mooy le peuple sénégalais bi nga xam ne bii loolu la ñuy laaj tey ci biir conférence bi pour que ñoom it ñu am pas-pas ñoom it ñu am engagement parce que soo deful politique dinañ koy faral di wax politique def la ko wala defaral la wala defal la donc il faut que ñëpp bàyyi xel ci politique même soo amoon président bi gën ci président wu adduna bi doo ko bàyyi moom kenn muy dem il faut que nga taxaw ci ginnaawam ba nga xam ne bu bëggoon a wuruj wala bu bëggoon a def naka su dul noonu nga xëcc ci mbubb bi xëcc mbagg bi même bu bëggee def lu baax même bu bëggee def am na yeneen yeneeni force li tubaab di naan ay force occulte parce que gis nañ ko alal baa ngi ñëw yeneen a ngi ñëw gis nañu aussi euh, yenn jalgati diine yi bu nga xam ne ay menace la donc ñun ñëpp Sénégal gi yëpp ñun ñoo war a di toog ñun ñoo war a di sottantee xalaat ñun ñooy war a di booloo di nekk benn leneen li ci des nag euh, ñoom imam daam ñoo ma ci ëpp xam-xam téeméer yoon euh, wax nañ ko ba tàyyi xam naa ne waxu laïcité yi neexu leen mais tamit ñun jullit yi xam nga xaw nga ñu ci ŋaññi sànq dafa am taxawaay bu ñu war a taxawoo toogaay bu ñu war a toogaay en tout cas laxasaay bu ñu war a laxasaay moom mooy que ne ñun ñoo bokk diine bi ngay murit ngay tijaan ngay laayeen ngay leneen ak leneen suñu bëggul ñu àtte ñu ci yeneen ni téere ci yeneen yi demin mais ñun ban taxawaay la ñu def naka la ñuy àndee loolu yéen ñi ŋànk diine bi war ngeen ci jóg bu fekkee jógoon ngeen ci ngeen continuer di ci jóg parce que tant loolu amul li mel ni terme laïcité qui est le moindre mal dafa waral sax di continuer parce que loolu moom mooy équilibre société parce que laïcité bi ñuy coow tamit soo demee ba Joal nga fekk fa sama mbokku séeréer sama jaamu séeréer ci benn kër menn menn geño menn meew kii tudd Jean kii tudd Ousmane kële Dibokor kooku ma nga ca xërëm ya keneen ka ma nga ca christianisme keneen ka ma nga ca leneen léegi ñooñee nga ne bokkuñu ci Sénégal que ñun rek nañu taxawal suñu suñu téere sunu diine loolu tamit neneen lay demee donc nañu bokkandoo ñun ñoo bokk Sénégal te li nga yéene sa moroom keneen rek nga ne comme dafa tuuti bëriwul du fi tekki du bokk ci dëkk bi boo demee Côte d'Ivoire mais xërëmkat yi ak beneen i diine ñoo fa ëpp jullit ña donc ñoom it est-ce que dañu war a fayu par rapport ak nag suñu taxawaay donc vraiment man euh, message yooyu laa bëgg laa bëggoon laa bëggoon a kii leneen li ci des pop bépp politicien bu mu mun ci doon nga nekk ci pouvoir vraiment liñ lay ñaan liñ lay ñaan moom mooy ngay wax dëgg bu wér peng nga def ay erreur mën nañ ko nangu mais nga wax naka su dul noonu bu mu wóor na ne naka su sudul noonu vraiment yow moom peuple sénégalais daf la war a bàyyi aussi donc képp kuy na wax di maandu yeneen i demin yeneen i comportement yi nga xam ne yi ay occidentaux am nañ ko te bokkuñu ci loolu fekkewuñu fañ koy defee xamuñu naka la demee nañu maandu parce que buñ ko xoolee ci sëñ Bamba xoolulu mbon mbonu tubaab beeg yooyu moom li mu xool mooy diineem lu mu xool mooy ca yàlla lu mu xool moom mooy ci gën gi mbindeef donc ñu taxawal loolu continuer ci loolu ngeen baal ma wasalaam rawatina contribution bi nga xam ne moom la suñu ba def di wax rek ne am na ay baat yu mu wax yoo xam ne man ni mu ko simple simple wul noonu comme ñoom li ñuy wax laïcité mooy dëkk bu dëkk boo xam ne ku bëgg a nekk jullit nekk jullit ku bëgg nekk catholique nekk catholique loolu du laïcité laïcité mooy génnee loxol yàlla ci ni nit ñiy dunde loolu lay tekki mooy dund gi daal compliqué ba dépassé yàlla ñu ne bàyyi yàlla bàyyi ñu réglé ko suñu bopp loolu mooy laïcité parce que loolu ko jur ay nitu diine yu doon dugal seen mbër ci dund Europe te fekk la wax du dëgg ba empêcher développement scientifique yu nekkoon Europe la waa Europe xeex leen ba jële leen fa ne comme ñoom yàlla ji ñuy wax ne mooy seen yàlla li caaxaan yi lay wax kon nañ ko génne si dund loolu nag ñu defee ne fu ñu dem foofu lañ moom loolu mooy si kon si laïcité doon na julli bu dundee ni war a dundee si li muy tekki mooy na yàlla génne loxoom ci suñ euh, ci des laïcité mooy mooy normal que léegi am na ay catholique yu nekk fii buñ dundee <laughs> loolu wax naa ko ba tey aéroport boo déggee xam nga fii du catholique yi ñoo ragal ñu dund lislaam jullit ti ñoo ragal ñu dund lislaam <laughs> sama jullit yi nag dañuy làqu ci kaw gannaaw catholique yi parce que catholique yi amul problème ci islam amul ci problème mën naa su ma neexoon ma jàng léegi texte bi yonent bi wax waxtu nañ naan wax ko ne ko du ñu changé dara ña fa nekkoon ay labbe ñooy nekk labbe ña fa nekkoon ay sëriñ ñoo nekk sëriñ seen jàkka yi nam meloon bàyyi leen ko noonu su ngeen bëggee sax ñu tabax leen loolu amul problème ci lislaam yi amuñu problème ci lislaam wax naa ko ba ne même euh, yi ñuy jëfandikoo te lislaam mayewu ko suñu ko ñàkkee état bi devoiram la mu defal leen facilité ñu am moo xam ay mbaam lañ wala sàng état bi la donc catholique yi amuñ problème ci état yi sax xam nga moo kan moo am problème ci état yi jullit jullit bi bëgg a nekkee jullit ni mu ko neexee te ñu ne ko doo ko fi nekkee kooku am problème moo tax bu ñu ne bu ñu nekkee bu ñu nekkee wuli sabaate fu kat luy jëm li mu ci jublu mooy wuli sabaate ñun fu ñu jëm loolu la ci jublu <laughs> loolu la ci jublu ah loolu dafa war a leer parce que tam euh, naxaate bi dafa yàgg da benn waaye dama ko aéroport booba alternance amagul ma ne ko bu bu PS PDS gagné PS fu PS fu pas PS yi jëm mu ne xujj di ma xool ma ne ko duñ ñoom fii la ñuy toog système bi mooy changé mais kenn ku ne la nga nekkoon ngay nekk orientation ñooy sal effectivement bi alternance amee li Wade di bëgg-bëgg soppi am na ñoo xam ne fa mu nekkoon fa leen bàyyi parce que ñooñu c'est pour l'État ñooñu c'est pour la nation donc orientation ñooy changé kenn du changé bàyyi leen wax ji te bàyyi caaxaan yi su fekkee da ngeen bëgg continuer di naan sàngara te l'islam du leen condamné loolu moom non jublu ma ci kenn ah bëgg rek alhamdulillahi alqail huwa anshaakum min al ardi mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xanaa jël kàddu rek ngir ndokkeel sëñ abdu mi nga xam ne ñëpp a ko ameel njukkal sant mbokk yi fi teew yëpp sant oustaz daam ak mbokk yi ci liggéey dama wax ne kaw suuf si nuy dund yàlla nee na moo nu ko dénk nee na moo nu ko dénk nu war koo mottilil la ca des taxaw ci defar ko waaye taxaw ci defar ko waaye it jàpp loxo képp ku ko nar a yàq ñu jàpp sa loxo ab jullit sañu ta a defar ci kaw suuf waaye itam sañu ta seetaan kenn kenn mu yàq ci kaw suuf moo tax moom ba mu juddoo rek nekk ab jullit la am responsabilité defar googu ñu koy defar nag dafa laaj tànn ay njiit ci waxtu jullit dundam gépp wut lu tax bu teexee tabbi aljanna mooy mission bi gën ci moom yàlla wax ne ñett salaasatun laa yukallimuhum llahu yawma alqiyamati yàlla ne am na ñett ñoo xam ne yàlla du wax ak ñoom yawmal qiyam du leen xool du leen sellal walahum azabun alim te ñi ci mbugal ñetti ñooñu mu ne ki ci njëkk mooy rajulun baa hurran fa akala thamana mooy ku jaay benn waay lekk njëgam boo koy wax ci Sénégal dañuy defe ne yaa ngi wax ca traite traite ñi daan jaay jaam ñi léegi kenn dootu jaay jaam ñi ñuy jaay mooy ay citoyen ay gor ay citoyen ay membre benn parti ay taalube ñooy ñepp léegi ñooy ñi ñuy jaay ay dootu ay gor dootu ko ñu jàpp yeew mu yeew yeew loxoom di ko jaay mooy koo xam ne dafa jaay benn waay moo tax bu bu élection yi ñëwee da gis kenn ku ne di wane ni mu pour suy waxaale ñu mën koo fay njëkk ko dal moo tax responsabilité bi yàlla lu nekk wax na ko mu teg ca koo xam ne dafa am dëkkandoo dëkkandoom am soxna mu mooy yàlla soxna sa mu ca la musul ñetteele ko boo xam ne moog bu njëkk daanaka benn lañ waa joo xam ne baa baayaa imaaman aw raisan aw aw laa yubaayiuhu illa li dunya mooy koo xam ne dafa woteel buur boo xam ne wala président boo xam ne wala député boo xam ne gisul ci moom compétence gisul ci moom jub gisul ci moom ragal yàlla la yoree tax woteel su ko joxee mu ànd ak moom su ko joxul mu fàq wala mu def niñ koy waxee transhumance léegi dégg naa tax ñu tudde ko benn terme bi ci des mooy jël responsabilité du gan ci réew mi mbokk yi wax nañ ko ci sëriñ ab doog bokkam yi Cerno Saïd doog seen mbokk yi waaye sëriñ aadi moo ci mujj 28 février 1968 la bind lettre sëñ Fallou ne ko las naa ruasa al jumhuriyeen jumhuriyeen dafa bind sëñ fàllu lettre ne ko duñ ay président de la république bugguñu ko liñ ama ko gën waaye nag nii réew mi doxe su fekkee taxawuñ ci kanam njaboot gi wax ñi jiite ñu jub te jaar aw yoon buñ dajeeg yàlla ci kanam yàlla danañ wax yàlla lu taxoon ñu am yi li ci des nag mooy sénégalais moom foo ko foo ko waxee rek mu ne yàlla baax na yàlla danañu xettali yàlla dana ci wax yàlla bëgg na jullit ñi waaye yàlla nag moom day buur boo xam ne dafa wax ne du ma defal kenn lu man def leen li ngeen man ma defal leen li ngeen mënut mooy li sëñ Baye Jaxatay wax mu ngi yedd Sénégal yi naan te yàlla kan mën na lu ne waaye nag du tax mu def lu ne ngir sàkk na dëkk fu ne sàkkal ko yoon wa ca jëm dëkk bu waay suubum ngërëm te taxawul dana ca dem yàlla li lay di dogalam te kenn di soppi dogalam aljanna nag ak topp ci jëm sawara ak moyo ci jëm ñaari barab yi boo ci jëm dalal di bu am ngërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah je crois que comme ni ko tubaab waxee dafa nit le temps nous est compté bu ko defee kon dafay jaar ñu bàyyi xel ci temps bi nuyoo yi ñu bëggoon def yëpp dañ koy teg ci loxo sëñ Abdou mu jox ko ñëpp rek voilà léegi dafa am bàyyi Cheikh Khady dama doon dégg ñu di ko wax mais mosuñu toog mosuma jàkkaarloog moom mais daanaa dégg nit ñuy wax ak moom te it milieu boo judd bu ne aussi ña ca ne am ca njariñ da nga leen xam mais loolu dëpp ajuwul ci ni da ngay bokk ak ñoom jotaay wala nga xam ne dëgg-dëgg mais témoignage yooyu dafay doy mais lii gën a tax ma xam ni ma xam ni ku amul moroom la sëñ Abdou Mbacke bokk na ci ab du bokk na ci ñi tax ma gëm ni waajuram bi waajuram Baye Cheikh Abdi nitu dimension la woon ci dimension yi kaw yel nekkoon pourquoi lu simple laa koy expliquer sëñ Abdou dafa réussir li xamante ni moom moo war a tax sax moom moo tax ñu naan citoyenneté c'est quoi mooy lan puisque léegi-léeg nit ñi dañuy compliquer lu compliqué wu puisque dañoo bëgg trop di dugg ci téere yi jàppi téere yi ajjana téere yi du ajjana espace su xam-xam la espace boo xamante ni ku ci ne sa xel ngay wax wala sa xel mu rafet sa xel mu rafet moomu nag mën na rafet ci yow waaye ñaaw ci dégg-déggu keneen lenn rek lañ fi nekkee képp koy wax di nit muy ci soobu ci wàllu xam-xam li ñuy tudde production ci produit du sens jeex na dangay wax loo xam ne rek am na sens mais loolu am sens ci yow wala mbooloo mi nga àndal wala ñi la gëm wala ñi la bëgg mën naa bañ a am sens ci ñeneen loolu la ñu war a xam ba tax na kon moom li may wax citoyenneté pour nit ñi mën ko dégg ci dégg bu yomb ni citoyen la mooy dafa réussir loo xamante ni nee naa dinaa ko waxaat loo tax ma teg ma xam waajuram kan la woon mooy lan sëñ abdu réussir na lenn mooy réussir na boole ñëpp mooy boole na ñu xam ni dañuy seen xam-xam dafa jëm ci wàllu araab ñu leen di tuddee ustaas yi arabisant yi waaye fexe na réussir na aussi ba ci biir biir kër kër këttam mu dugal ci aussi ñi ñuy tuddee homme politique xam ni ñoo ñuy gouverner waaye fexee na aussi ba dugal ci péncam ñi ñuy tuddee ay intellectuel muy universitaire mbaa keneen ku mu mënti doon. loolu nag mooy citoyenneté puisque sensu citoyenneté mooy ki xam ni am na wàll ci société bi waaye mooy ki xam ni aussi dafa war a amal njariñ cité bi danaa expliquer ñaar. pour ci ci gàttal loo xam ne daf ñu permettre mbir mi gën a leer parce que dañuy dugg ci définition te li gën a jafe mooy définir mooy définir nit ñi nag parfois bu ñuy définir daf ci am ñoo xam ni seen définition ma ngay jëm ci étymologie maanaam mot bi nañ ko ca njëlbéen nañ ko doon tuddee alors que mots yi li leen di créer contexte contexte mooy jox sens mooy amul benn définition boo xamante ni am na sens am na am na njariñ mbaa manees na koo dégg bu fekkente ni indiwuñ ko ci contexte bi kon dañoo war a jàpp ni li ñuy définir daf li ñuy définir souvent fan lay amee sens wax naa contexte bi dañuy indi contexte bi mais boo indee contexte aussi dafay jaadu ci nga convoquer histoire boo leen boolee ci ngay xam ni amul lenn lu nit di wax loo xamante ni mënul am glissement de sens wala évolué wul dans dans son sens na n'évolue pas dans dans le temps moo tax ci loolu laay ñëw pour mu leer gis nga wax nañ fa laïcité dinaa ci ñëw parce que c'est des choses qui nous interpellent laïcité problème communication la ak définition moo tax kenn dégg ko mot bi terme bi sens ba mu doon signifier ca njalbeen mënatu ko signifier loolu dem na ci ba li ñu tuddee démocratie mais dem na aussi ba li ñu tuddi citoyenneté mën nañ cee ñëw bu ñu neexee li xam ne nag dafa jëm ci wàllu diine du ma ci wax kooku dama koy bàyyi ak mais am naa droit li xam ni sama xam-xam jëm na ca même aw ma mën a ful ko kii nag mais mën naa ci wax dara mooy citoyenneté mais mooy en engagement te ñett la woon da ngeen di citoyenneté engagement ak religion benn bi génne naa ko bàyyi koog ñi xam ni ñoo ma ci gën a spécialisé bi ci des nag am naa ci tuuti xam-xam la ma ci xam dana jaadu aussi li ma ci xam ak ni ma ko gisee ma wax ko mais muy gis-gis boo xamante ni du benn gis-gis rek ku ne mën nga cee am gis-gis bu la neex te loolu dëgg-dëgg mooy démocratie mais citoyenneté aussi mooy bàyyi nit ñi ci seen seen liberté amul benn citoyen citoyenneté bu ñu mën a teg dëgëral ko fee tënkuwul ci liberté c'est d'autant plus vrai que ñaari citoyenneté moo am wala ñaari citoyen moo am citoyen boo xam ne dafa actif ak citoyen boo xam ne moom dafa passif citoyen bi actif mooy kan mooy ki xam ni dafa jël boppam yoole ko réewam c'est-à-dire may ko ré may ko réewam sacrifier woppam pour réewam li xamante ni nit ñi defatuñ defatuñ ko loolu sax moo indi tey aujourd'hui mais moo bi sa am na beneen signification bu bu bu mu jël léegi mooy lan bu ñu nee citoyen sax dañuy dem ba jàpp jàppee ko ñu xam ni ñoo xam ni ñu ñàkk fayda ñoo xamante ni amuñu benn pouvoir amuñu benn njariñ ci réew mi mooy glissement sémantique yi xamante ni dafay am ba parfois di réeral nit ñi lay ma dellu si ci laïcité problème mu laïcité encore une fois problème mu définition la am dañ ko andi dañ ñi ko njëkk a définir dañ ko définir woon noo xamante ni ñëpp ànduñu si woon xamoon nañu objectif yi jar ñu dellu ci objectif yi mais nekkatuñ ci loolu dañoo nekk ci beneen époque boo xamante ni sens bi forcément dafay changé te buñ ko intégré buñ ko intégré wul ñun si sunu bopp ñooy am problème toujours ak moo bi alors que mooy amuñu problème nit ñi leen di définir ñoom ñoo am véritablement problème ñoo am problème laïcité en moo tax dama ci waxtaan ak maam Thierno Cissé bokk fii di linguiste université ñu ciy waxtaan man ko problème définition la nit ñi il faut tuddee laïcité rek nit ñi féete le sens étymologique bi mu njëkkoon a am xam nañu objectif ñi xam ni ñoo ko créé seen objectif xamoon nañ ko objectif boobu ñëpp ànduñu ci léegi moo bi am na benn signification boo xam ni buñ ko intègre buñ ko intégré wul dañ ay xuloo xeex la ay ay nitu diine danañu xuloo xeex waaye ñu bokkul diine danañu xuloo xeex ñu koy kon luñ koy définir mooy dañuy jàpp ni daal mooy ndey ji seex rek nday ji seex mooy en réalité laïcité ñu ko déggee noonu ku ne da nga am place di borom diine bi da ki ne ci lislaam kenn du ko tere lislaam ki ne ci beneen diine kenn du ko ko tere ku nekkul ci beneen diine ñu bàyyi ko pratique pratique am l'essentiel mooy ñu fexe ba yow li xamante ni moom nga sa droit sa droit ñu jox la ko nga am ko nga dundal ko wasalaam